mbokk internet yi daleen ak jàmm Amadou Ba nekkoon na koo xamante ni nag kenn déggu ko ba tey mu wax ci ay ambition ci wàllum politique waaye nag fu mu toll nii daanaka attaque ay pic ba ci sa xeet yi nga xam ne moo koy jotee fu nekk lépp ngir nag daal di koy nag jox ay leçon de morale ci ne ñu dafa bëgg daal di nag diir mbag ki nga xamante ni mooy président de la république Macky Sall ci noonee nag démb ci ab rencontre goo xam dafa am ci diggante moom Amadou Ba ak yéen nag ci population yi fare foofu foofee nag ca diwaanu parcelle ak Mbaye Ndiaye Mbaye mi nga xamante ni nag moom la jox lépp lu jëm ci wàllum nag daal di suqali banqaas yi nekkee ci APR daal di nag séq benn tontonte gu saf ñoom ñaar ñi li ko waral bokk na ci nag rencontre gi ñu doon amal ak ay femmes yu faree ci diwaanu nag APR foofee ci diwaanu parcelle eh, ci la Mbaye Ndiaye ñii daal di jëlee nag eh, kàddu ba muy wax nag daal di wax ki nga xam ne mooy Amadou Ba ni ko nag yow je t'estime bien waaye nag dama lay jox quelques conseils déglu xam ne ñooy nekk sa nopp di ko yëy naan laan demal nga ànd ak ki nga xamante ni moom mooy keneen koo xamante ni moom mooy Sonko wala boog demal nga diir mbagg président Macky Sall ndax loo mën a am parcelle lekk lu mu fi mën a am yow mën nga ko fi am moom Mbaye Ndiaye naka wax ba daaneel mu mel ni daf koo daal di naka soññ waaye soññ bi na ànd ak tuuti xas waaye naka moom mi di Amadou Ba mi nga xam ne mënewul wax kenn daaw ko dégg ci ay kàddu mu nekk intellectuel bi nga xam dañ ne intellectuel bu civilisé la naka daal xam le ni nag ni lii moom Mbaye Ndiaye nag eh, wax nag ba daaneel Amadou Ba jox ko kàddu mu jël micro ba la mu commencé mooy ne Mbaye Ndiaye maa ngi ci say conseil waaye nag eh, fu mu toll tooguñu nag ci ay nag eh, posture di wax ne kii mooy chef kii kii mooy chef kële taluma ko talumay chef aw ma ko ma chefé nii nag ka nekk ci APR ka ma bañ fee nekk lépp li nga xam ne moo am solo nag mooy wàllum li nga xamante ni mooy engagement gi ñu am ci population bi ak wóolu gi ñu wóolu ñu mënti nekk loolee la ñuy doxal et que nag nga xamante ni euh, moom mooy sunu mentor nekk chef bu parti bi waaye nekku chef kenn lu dafa jiite parti bi jiite Sénégal kese moo tax yenn respect ñu di ko teg ci loxoom la daal di xamle mooy Amadou Ba daal di ne nag kon nag man taluma ay kii moom a chef wala de moom a chef mu mel ni nag moom mi di May Ndiaye nag dafa mel ni dañ ko daal di yónni ndax nag nee ñu euh, naar bu ndaw bi nag lu mu wax ci naar bu mag bi la ko déggee mel na ni nag ni li ñuy ruumandaat ca ba ca couloir di ay bruit moom la dégg ñëw daal di ko yee